ba ñoom ñoom dañ ko cay soreel ne nee la daal moom lépp lu lu mu def amoo ca intérêt na xam loolu loolu wér na yàlla doo ndax yàlla su am intérêt ci mbir rek kon mooy ko ko ko nekk dafa manqué soxla woo gi la waaw te te nee na wala waxan yun an yàlla amin ah loolu ko kon mënut nekk moom mu ne mu ne abaadi bu ne yàlla amut ay benn benn maanaam amut ay ay lan ay détail ay cër amu ko neena foo foo foo muraaduhum bi bi tansiihi anha annahu laysa lahu wajhun wala yadaan ci loxo wala yëpp benn baaraam wala wala dans la usbu' kooku dafa ñoom daal dafa mel daal xanaa dégguñu xanaa daal làkk wala boog daal xamul lu xew mu ne amal xuduud wal jihaad. mu xëy may ba tey de mooy wax. limite yi ak djublu way neena buñ ko waxe ñoom naan yalla ëmu ko liñ ci liñ ci jublu mu lul jublu neena moy ne yalla niwul ci kaw asamaaw yi yalla yalla nekkul ci kaw aras yalla kenn du ko ni mi ngi fi sangam neena islaw kana kazalika lazima isbatul hududi wa jihati wa hum sun an ci tan tari ñom ñu ne kay ni ñu fep ko ko yalla bi ci aras wala mi barab sangam ko ko ko yow do do ko wutal place te te yàlla mu mu am place mu ne bu ñu waxee ne yàlla kat xawaay de si so li sosu du ne ci jëmum ja neen li li ci jublu moy sun borom kat du dur bi in annahu la la yatakallam bi sun suñu du du wax mana legi du wacc ci asama bi ci suuf mana sun borom du dik sun borom du mer wala yaxdab ku ne ku ne yàlla du mer pour ñom eh, da nga wet yalla yalla kay day mer neen neen di xol ba ba da an yalla day gërem ci yàgg mu mer ba ci yàgg mu gërem ñi di ma di yalla xana dal bo bo li mu umu taxam ñoom wala yarda ba da an kaana qad banan wala yaqu bi fi bu lu abata neen yalla jëf du fi xal nak lu lu sosu sosu wala amru mu jëdat neen mbir mu xam nga mbir mu yees bu bu dee sos na ci yàlla ana lan moo sos loolu xanaa du yàlla moom bu dee bu dee am na kenn ku sos nag koo xam yàlla moom yàlla kon duut yàlla <laughs> loolu moom loolu loolu la mu ne baada ànd mi kun mu ne ci wàllu yu du na yàlla du jëkk-jëkk namm lu nammutoon waaw léegi nag kon loolu kon Ibn Xayyim moo ko wax waxoon naa la fi nekk. mu ne kon léegi nañu ñëw kon nag ci téeréb maanaam al imam asalafi abu muhammad mahmoud ibn abil xaasim addasi ne war naa 665 ci ci la maanaa wuj yàlla téere bi ñu tudd isbaatu xadd lillah wa bi annahu qaaidun wa yasun alarsi téere bi rek tur bi dafa ñaaw al albari mi nga xam ne benn benn salafiste mënu ko weddi moo ci sëriñ donte nag mujj gi waa saw sawjeen yi euh, kii nañ ko euh, mere nañ ko ndax dafa dafa saxaloon ne dafa dana araam na ci jigéen ju ju ju armal mu muur kanamam bu mu ko waxee ginnaaw ñoom ñoom dañoo fiir ba dañoo ji jigéen ne muur ba ne man lañ loolu tax ñu maanaam léegi kii ko sonaloon ko loolu boobu it maxluma la boobu am solo ñun ñu xam ne kon abani ci ci mujjam sa maanaam léegi salafis yi dañ ko mere téere bi li mu wax nee na saxal ne yàlla am na limite. yalla dafa qahid moy dafa rigu qada moy nga tok ba dëgër diju bu baax ba dëgër dëgër xay na nga ngay diju ba dëgër tok ni mu diju man ba dëgër wa jaalisin moy na tok tay dafa tok ci aras ci ca arsam fofu rek dana xala jaw ma ne ba mu dijoo ba mu toogee ci aras ba jik muy bindi aras fum togon wala la mo isa ma loolu mo islam lu wax loolu moom ba xam ba xam xanaa xa xanaa yéen xanaa yéen ñëw nañu fi kon ñu muy tax moom xanaa ni kat yàlla ak aras dañ cee mbas di nekk ah soo ko waxee nga kon yow am kon ñaar yàlla loolu moom xanaa du ko ñemee xanaa du du xanaa bari banaan it xanaa maa ngi tuub ne kat yàlla day maanaam léegi dafay nekkoon bi tàggu bind aras waaye léegi kon léegi ba mu ko bindugul kon xanaa xanaa kon dafa dafa jékki-jékki soxla kon léegi su su su ñu xoolee téere bi. ci lu lu gaaw ci babu sañi ba nit ñi ko mu xaqe bi euh, defé euh, ci ay buntu dana gis ben buntu bu yéeme gëstu bu yéeme ci te te te mooy gëstu ba mooy isbaatu julusil rabbi asa wa jalla moy saxal ni yalla dafa tok bu dee ci bu dee ci gëstu juróom ñal ba ñu fekk fa ni yalla kat amna makkan isbatu makkan makkaan lay taala yalla dafa am barab lool tire ba ko suñu fekkee ci assimil nu mu tudd assimilate dilaliya wala simiologie dilaliya maanaam léegi wax ji lu li mu firi lan lay junju mooy kon yàlla moom jëmb la matière la lool loolu rek lay wax moom ci ci ci bu gaaw kay fan nag wa kam man yàlla lépp matière la léegi danañ danañ danañ diglu équipe am ñu wax ibnu taymi rahimullah nee na والنفاة المعتقدون انتفاء هذه الصفات العينية نيغا خامن دا دانيو ودي ني يالا اموت ملوكان يو جيم جوبلو سي الخبريه مثل الله كيد نانا لم يعتقدوا انتفاء حال كونها مردوده في التخيل وتوهم ولكن اعتقدوا ان ان العين التي تكون كذلك هو هو جسم نانا نيوم جوبلو نجي دقنيكو غير نكات لولا مانا نيت مونيكو ايماجيني واي دني ديت maanaa ne kat loola munta nekk ci lu may jism bi ñu xam waxtaxadu anal baari laysa bi jismin ne ñu jàpp ne yàlla amul yàlla nekku jum fa nafahu dalika mu ne wa maxlumun an kawn al baari laysa jisman laysa huwa mima taarifu al fitratu bil badiha nee na yàlla nekku jum ne lo daal nit mënu koo xam ci am xel mu set rek tel moo xam ne dara ci teraku jo kon moom nee na am xel li mën a xam mooy yàlla jëm la mu ne ci ci ci walla bi bi mu xam xamu muxaddamaat maanaam na fi fi fi fitra bal bi bi mu xaddamaatin fi xafa nee na watul nee na képp koo xam ne da nga bëgg a layal ne yàlla nikkul jëmm da nga sonn ci teg ay lay waaye ñun ñëpp ñun xam ne ni yàlla maa jëmm la jàmbar nee na kon. وليس مخدمات بيني بينه ولا متفقا على تقبلها بين الانقلاء لان برب خلي نغو ني يالا امو جوم لي نغو موي يالا ام جوم بل كل طائفه من الانقلاء تبين ان من المخدمات التي نفت بها خصومها ذلك ما هو ما هو الا فاسد معلوم لان كيب كو ما هو الا فاسد معلوم فساد بالضروره عند التامل parce que taxiri nee na képp koo xam ne da ngaan yàlla amul jëmm kooku moom fu ñu xam ne ne xalaat bu bu bon la mu ne nee na ci mutakallimoon yu bari da dàq nañ ne yàlla amul jëmm nee na kay yaquluuna bal qaamati l qawaaticu l aqliya ala naqidi hada al matlub wana al mawjud al qaim bi nafsihi la yakunu ila ila jisman nee na daal xel yi lu bir cëm ci xel yi mooy ne yàlla jëmm la am ndax lu amut jëmmu nikkoo waaye yow Ibn Taymiya rahimahullah nee ñu ma ko wax nee ñu ma ko wax laay wax kat maa ngi juum waaw wala onel a juudal laa yakunu ilaa jisman jëpp joo xam ne amar nga ahsanta ahsanta ahsanta ahsanta ko kon de dafa mel ni kon arab bi moom kon juum na ci arab yi si si si si si Fallou Ndiaye junj lu am solo alqaa'imu bi nafsihi nga ne kat mënut nekk lu may gis ma te gis mu moom la mënut a ñàkk a soxla waleen oh kon mu daal ne sëñ bi daal ndax ko digg arab waay mën naa am di man tuub dama yaakaar ne waxu ko ko mën naa waxu ko dama yaakaar dañ koo ko sol waaye waxu ko dëgg yàlla waaye di wax am solo am solo lool mu ne ci ma gis man la lay ma du man nee na ku lu amul lu amul jëmm nag ne rahimahullah ndax mun li xadis li waay ndax alxuraan la dongaam yi ñoom lu ñu topp ci riir bii rek ah sëñ bi nii moom xaw maa di mu ne ci ci ci ci ci ci minal maalumi anna hada aqrabu ila fitra wa naqul nee na yàlla am na jëmm moo gën a xellu ci am xel ah bool bool di xam ko kay ko yor <laughs> ñun de xamuñu loolu ay am na jëmm ñu ne la sëñ bi <laughs> yàlla dëgg yàlla mu ne kon nag imité may yëm fa ma ngay gën a leeral mu ne. من عي كان ما حكاه الفخر فخر الدين الرازي عن الكهنة دلا فخر ال ال ال الإمام فخر الدين الرازي من بيد بيد بيد دقن يلا دن يلا أهل يوم مملمت ما كنت خسر يوم بين لين فخر الدين أجي تي كراسي كهنة دلا ينون لين وحيم من إنهم يلتسمون الأجساء والأبهات فإذا كان قوله فمعلوم أن أن هذا القول الذي حكاه هو qawlu man yusbitu haadihi bil maana allati samaahu huwa ajzaa wa abadan fa takunu haasihi sifaat qaa'ima bi nafsiha fi saahid kama do kama ana ilmuhu wa xudatuhu laa taqbul ilah moom dana rek li nga xam ne moom la imaam foofu Faxrudiin di wax ay abahad ay cër loolu loolu moom dafa mel ne da koo bëgg a jàppee li dem gis si biti waaye déedéet sun borom moom ay cër la am waaye man naa wuteeg li li li gis ci ci biti mu ne kon mu ne ci misaal. fa fa jawaasu saalika alal maxluuqi laa yaqtadi jawaasu alal xaaliq maanaam léegi nee na nee na daanaka wa in kaana al maxluuqu yumkinu mufaaraqata maa huwa xaaibun bihi ci maa huwa minhu minhu yumkinu mufaaraqatu ba'da ba'da daalika baxdan nee na bu dee nit ki mën nañoo dagg ab loxoom wala dagg dagg tànkam loolu nee na du firi ne yàlla moom it ab cëram mën naa dagg. mu jeex moom daal loolu foofu rek la la moom moom la soxla ne kon daal kon moom xam nga noonu cër lu ñu ci xam mooy cër lu ñu composé la lu ñu composé nag ma ci ci xel ma si ko ko moom la déet déet nee na na yàlla moom li composé wu na am waaye nag kenn du ko def détaché ah dëgg yàlla ndax mbër mu tal yàlla moom lu may kenn di dama koy dama koy moom léegi <laughs> xam naa ko. yaakaar mi mel ne nga ne jadi maanaam léegi kat kilifa to euh, euh, sous préfet bi di rek ci nga ne mën naa ko fay jëlee yow simple citoyen bi waaw lolou lolou xana kon waye yaakaar naa mu ne mu ne wa in kanat wa in hasi sifat wa in kaanat aayaanan nee kat melokaan yi yàlla yi bu dee ay jëmm nak fa lay sat lahman wala asaban waye ne nak duk dulan aw aw aw wa sab daman du deret nga nam waaw wala waaw nee na daal bokkut ak euh, jëmm nit ñi waaye nag jëmm la léegi ahadis yi nga xam ne loolu surtout ay ay ahadis asar la asaru musbitil xadd kamaa inda dëssi du ndax ndax léegi al albani ñëwoon na yurub moom ay wax la foofu bala dikk ñu xam ne li li nga xam ne moom la dëssi di wax lépp suñ koy jëlee mooy ay nit ñoo xam ne ay ay siifa lañu woon. dugg ci islaam gaa yi di leen laaj waaw yéen maanaa léegi ci du foo foofu ay diim yéen nu ko seen tawaat doon doon waxee ñoom ñuy commentaire commentaire yooye nag Ibnu Taymiyya mu yàgg ay dongaam loolu lañ jël jàppe ko ay usul ay cosaan ku ne xam na ne tawxiid ginnaaw pas-pas moo gën a for ci diini naka la si ko mën a jële ci commentaire ca téere yu jëkk ya am na sax si ci ne sallallahu alayhi wa sallam romboon na turam mon na sayyiduna omar mu yor tawrat lu yor ma ko tawrat mu ko di mer ba kanam gu xonx ne ko ne ko yow andil na len ko mu toy xep ah toy xep mara nga xamne lu yes pek la ah fresh lu toy xep la ba nopp bi ngeen ko fe bay xolen kon ko kon yow bas bas mu ne ko jëjë jëlé kon ci ay commentaire yo xamni ab yahud mako jëlé won ca mana diinam ji jëk ja yakarna mu ne kon nee na kon eh, ginnaaw eh, eh, albani ñu wedd ne kon nee na moom laysa laha min kitaab yi sunna laysa laha la asasa laha min kitaab sunna li nekk ci téere boobu bépp muy imam de si wax nee na dara wéru ci nee bu njëkk bi nee na samiatu abdillah yaani ibnul mubarak ibnul mubarak mi nag du ab saxaabi yi wax laqi jamaatan min at taabiin kon kon kon kon aqida ñun ñu ngi koy jëlee ci kudut kudut saxaabi sax saxaabi yi sax am ñoo xam ne dañ sax du dox xujja ndax munaafiqoon yi ci tey ci saxaaba la ci lañ bokkoon kon léegi aqida ñu ngi koy jëlee ci ab yonant maxsuum kenn du ko jëlee ci xëy maxsuum ci rek moom maanaam sax du sax ab tabi'i waaye nag ah daje naa ak ñoom waaw yaqulu naarifu rabbana azza wa jalla fawqa sab'i samawaatin alal arshi baa'inan min min xalqihi bi haddin ñeneen nu ndey nu ndey xam nañ yàlla ci nu nga xamee mooy mi ngi ci kaw uh, juróom-ñaari asamaaw nekk ci kaw aras ba noppi wuute ak maanaam uh, maanaam deñ ci nit ñi dañ ci bind bi maanaam daal am na limite ci seen diggante wala naqulu kama xalal ci jaxmi xam nga ci jaxmi ne woon nañ alxanu saani hijri la ñaareelu gàddaay bi la kon moom kon moom bokku ci bokku ci kon tabiin yi nee na moom duñ wax ñoom li ñuy wax ne nekkat maanaa yàlla moom amut amut amut maanaam naa limite ne duñu duñu wax ne it mi ngi fii ci ci ko suuf xam nga ñoom ñoo ko ñoo ñoom dañ ne yàlla ñëw ci biir àdduna ñëw ci bitti na ñun daal yàlla daal euh, nekkul luy nekk ci biir ak bitti waaw yàlla nekkul loolu ndax la tax loolu lépp boo ci bitti ci kaw ba ci lépp moom mooy firi ne daa am limite waaw li ñu firi moom mooy kon matière matière yi dugg ko génn waaw mu nekk nee na bi nga ko waxee mu daal di jiitu junj waaye jox mbaaraam daal daal ñu ci suuf. نعم. نعم. نعم. هذا الأثر رواه الإمام الدستي عن طريق ابن مندة عن طريق عبد الله بن أحمد في كتابه في كتاب الملفق تحت عنوان السنة السنة لإمام أحمد بن حنبل تيربا ملفق له تيربا لب ويرب تيربا dañ ca digg imaamu ibnu Hanbal di ca wax ci saxaaba yi wala mu ci wax ci borom xam-xam yi loo xamante ne ku ne xam na ne imaamu ibnu Hanbal du ko wax te ba maanaam kon la fax la ndax daal am na ci xam ne daal yëruwul maanaam ibnu Hanbal di ko wax ci ay kàngam waaw kon téere ba daal li am solo mooy téere bi moom ginnaawam ginnaaw ibnu Hanbal lañ ko lañ ko bind am na ñu ne doomam la am na ñu nangam la moo ko bind. maanaam daal ci ay riwaayatam yoo xam ne jë jëlee na ko nee na ci ci ci ci baayam maanaam nag eh, asar bi wala xadi wala lu ñu tuddee tuddee eh, loolu xam nu ñu ko wax tuddee bu boobu mooy omda ci ne yàlla am na limite ci salaf yi lu wax da dee an abi hurayrata abi abi ku ne xam ne ne moom it eh, maanaa boo demee ci di xool ay ay ahadis dinañ bari na lool moo ëppalee ah, ay ahadis yu yu mu nettali moo ko ëppalee Aboubacrine Sadiq moo ko ëppalee Aliyu ah, Aïcha bi dikkoon ci kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam di soxnaam mënoon na ma ko lool moo ko ëppalee moo ko moo ëppalee si final yi ëppalee ñëpp daal loolu moom beneen beneen beneen ci ci wax la nee na dégg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam di di ñaan di wax ne. anta zaahirun fa laysa fawqaka shay wa anta baatin fa laysa duunaka shay xam nga lii moom lii maanaa wax junniy firi la aw kàlla la waaye mu ne su ko wax maanaam anta zaahiru soo ne anta zaahirun mooy kon lépp loo gis yàlla la kooku yunu mën a islam si bi nga xam ne Ibnu Taymiya rahimahullah ñu xam ñoom dañ ne yenn kat lépp maanaam lu ñuy firi noonu la waaye kenn du ko du kàll yaakaar naa faw mu ne lii kàll la ndax lii mu ñàkk a nekk kàll mu ne kon an abi rusi al uqayli daan ne xaala qultu ya rasulullah sallam ayna kaana rabbuna maanaam xadis bi nag nit bi bi abu wax ne anabi sa salaam xaala fi duwaa yi anta zaahiru fa laysa fawqaka shay'un wa anta na waaye nag foofu sax soo ko firiwut day rëy maanaam soo ko tawilul ku mel ne ku mel ne Ibnu Arabi ñi ñi xam ne dañu xóotal naan kat kon loolu day firi kon yàlla yàlla muy lépp waaye lépp goo xamee nag dafa wute ak lépp loolu loolu moom mooy xamuma lu doon <laughs> loolu xamuma nga nga nga xam ne ko kon fii kon du kon kon léegi islam si ñoom kon faw faw ñu firi ko ndax léegi mënut a nekk yàlla kat dafa nekk ci kaw lépp nagam nagam loolu loolu du ko firi ci yaakaar naa. mu ne kon nee na laaj nañu tubaab ne ko ay na kaana rabbunaa jalla qabla an yaxluqa xalqa ci li bind bi bindee fii foofu mu ne woon qaala ala ama in foofu dañ fi taxawlu ala ama in taxtahu hawaun suma xalaqa arsahu alal maa nee yàlla xamaa mooy saxaaba aw niir wu weex nee na yàlla ci la ne woon nee ci ron niir wa nag ñee na ngelaw ne fa dëgg yàlla kii moom kii doo kii yëwu di laaj bi mooy xabla an yaxloo xalqa tudd na fi aw niir tudd na fi na fi ngelaw kon léegi ku ma bind loolu kay liy wax damaa yaakaar na ñoom bi bi ñu koy bi bi bi ñuy rab xisa bi dañ dañ ko xoolatul jàmbaar lañ dañ ko xoolatul mu ne suba xalaqa nag arsiwu alal maa kon kooku kon kooku mu jëru kon ko noonu mu ne kon ci ci waay oxraan nee na xaala fi fi xamaa in maa fawqahu hawaa'un ci ci maa tahtahu hawaa'un lu mën di am ñeneen fii nee na niir la woo xam ne kat ngelaw di ci kawam ci taw nii ci kawam ci suufam waaye lu ci di am niir wa nag nekk ci aw mu ne su ma xalaat nag arché ci ci calme ma ne kon fii kon boo xoolee saxal na kon ñaari xaddi may nii juge bi lay tax la yàlla ndax ndax saxaaba bi niir euh, wi ak ak ak suñu borom léegi moom it Isaaq ibnu Rahawee fi hadis ibnu Rasin yi wax na ci lu am solo mu ne xawluhu fi ama nee na saxaaba dara loolu kon moom nee na kon aw niir wu weex la loolu kon mënut a fexe ba lay kon ndax lay kon niir weex kon mu yàlla ñoo fi nekkoon euh, mu ne an Abdullah ibnu Xalifa ان عمر ديال عنه بوخي حديث بي امول امول تسول دا غان دير ني رك كوم ماي لون كات سي أنا نينا تمن فيكي موكو قال اتت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اودع الله ادعو الله ان يدخلني الجنه فعظم ربه مؤمن تبي سلام ما ديف لولو سما خاله ان كرسيه وسع السماوات والارض وأنه لا يقعد يقعد عليه ما يفضل منه مقدار أربع أصابع ثم قال بأصابعه فجمعها